bu ñëwee suba la làmb ji ci kàttanu yàlla. waaw ñu ñëw ma wax leen kan laay jox caabi ji mu ubbi buntu ma taxaw xool ko. jamono ji ñu lu bare bare parce que am na làmb yu fi yoo xamante ne na seen Bombardier mu a bën a bëri mais gis nañu léegi ci làmb euh, da ci wax mais yooyu. ana livre bi ma leen jox